ñu waxee mbalax rek tënk nañu musique bi ah c'est lu ci nekk xaj na ci te vraiment sama yéene man mooy nekk ah une fierté africaine c'est ça l'importance li ma wax euh, dama koy répété sama papa yi liggéey nañu macha allah yàlla na leen ko yàlla fay ah, wane nañ seen preuve mais man bëgg naa leen dépassé di leen raw loolu mooy sama objectif loolu mooy sama développement boobu laa am alors est-ce que internationalement la koy prouver euh, loolu yàlla moo xam dinaa jël samay once ma sànni ko fu mu mën a at te ci des nag moom suñu borom moom mooy. salaamaaleykum.